شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak dellu si neen fas yéene waxtaan ak ci comportement jullit bu jigéen aji ju jigen comportement am ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam bu ñu ci alquran ñu gis ne amna ay ndigal yu yalla ya joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war melawoo yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul lil فروجهن yaghdudna min absarihinna wa furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون yàlla mu ngi wax ak way gëm ñu jigéen ñi mu di jullit ñu jigéen ñi mu ne yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñu gëm ñi ne leen nañuy damm seeni bët nañuy góorgóorlu ci sàmm seeni pëy buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari tenq ya. ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tanxam mu melni kon jigéen warna war nañu gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi te moo di lu ñu mën a góorgóorlu ci nëbbu seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gën a jubóog seeni boroom yàlla nee na la ca war a feeñ nag moo di kanam ga ak ñaari tenq ya mu ne wal na bi xumurihinna ala na nanu wàccee nag seen muuraay ya ba mu toll ci seen dënn ya xam nga bu njëkk ba ci jahiliya ba l'islam ñewagul jigeni ñi rob yiñ daan ñawlu gannaaw ga daan tëju ba ca kaw waaye dënd ba nag daf daan ubbeeku moo tax nag yàlla bëgg a wane comportement jullit bu jigéen ci l'islam mu wax ko nag ne ko bokkuloo nag ak ki nga xamante ni du jullit gëmul bokku sax ci colin comme ñoom dañuy xàppati seen dënni robb ya ba seen dënn ya di feeñ yow sa dënn warul feeñ kon boo solo ba pale na nga jël muuraay teg ko ca kaw moo di na nga jël kaala teg ko ci kaw te kaala ga itam na nga ko wàccee ba li xàppatiki woon ci dënn bi kaala gi mën koo muuraale wal yadribna bi xumurihinna xalaa juyubihinna ala juyubihinna doo ko firee ci seen poche ya waaw xam nga barab boobu nga xamante ni mooy feeñ ci jigéen ñaare daf daan am poche waaw mu nattale ko nag ne fayay tolloog poche ya te muy dënn ba rek bu doon fii ci sénégal la nag dañu naan e, xappati yi nga xamante ni moom la jigéen ñi di ñawlu nga xamante ni e, yaram wi yépp dënn bi yépp day feeñ baat bi sax day feeñ su ko defee nag su fekkee solo nga ba pare nga jël nag kaala teg ci wàccee kaala gi nag ba mu muuraale sa dënn loolu doon feeñ loolu yàlla ko wax mu ne wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha bu ñu feeñal nag seen awra lu dul la ca war a feeñ la ca feeñ nag moo di kanam ga rek ak ñaari tenq ya te moo di ñaari loxo yi te itam boo dee xool jigéen ji am na ñu dagan ci moom pour ñu gis awraam ñooñu alxuraan tudd na leen daneen ci agsi jigéen am na ñu ko war a xool am na ñu ko warta xool waaye nag boo gisee alxuraan fiir ci dafa fekk ne jigéen dafa nekk fitna bu dalee rek société dal su dalul nag société nekk ci fitna moo tax nag ak dalam la alxuraan di leewatool moo tax nag mu bëgg ko njëkke ci njabootam ñu yore comportement yu baax mu ne nag jigéen daal warut a feeñal cëram lu dul ci jëkkëram sa jëkkër nag moom mën ngaa feeñal say cër ci moom am na droit gis sa awra moo tax mu ne wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna lu dul seen jëkkër ya aw na wala seen baay ya ñoom jigéen ñi jigéen ju nekk sa bàyyi sañ naa gis sa awra sañ naa gis sa bopp nga bañ a muuru waaw sañ naa gis sa dënn sañ naa gis sa yeel yëpp sañ na koo gis ba awra yu biire ya yëpp war na koo gis bu ko gisee bàkkaar du ko ci topp sa jëkkër sañ na koo gis sa bàyyi sañ na koo gis aw abai buulatihinna wala sa seen bàyyi jëkkër ya waaw sa jëkkër itam baayam am na droit gis sa awra yow ku jigéen ki maanaam sa goro aw ab na na wala sa doomi jëkkër sa doomi jëkkër itam boo ko jurul am na droit gis sa awra aw abnai buulatihinna wala seen doom yi yéen jigéen ñi waaw sa doom ji nga jur ci kër gi am na droit gis sa awra waaw sa jëkkër yi tam doom ji mu am donte feneen la ko amee araam na la am na droit gis sa awra aw ixwaanihinna say frère itam moo xam sa mag bu góor la wala sa rakk bu góor am na droit gis sa awra kooku lislaam du ko ci bindal benn bakkaar aw bani na wala itam sa doomu mag bu góor wala sa doomu rakk bu góor moom itam am na droit gis sa awra loolu bu ko gisee lislaam du ko ci bindal benn bakkaar aw bani axawaatihinna wala say doomi sœur sa rakk ju jigéen wala sa mag ju jigéen moo xam bàyyi ngeen bokk wala da ngeen bokk ndey baay bàyyi boo amee doom doom ja sañ naa gis sa awra aw nisaa ihinna wala jigéen ñi ci boppam ñi ciy jullit am nañu droit gisante seeni awra maanaam jigéen ñi kese ci biiri nekk mën nañoo gisante seen awra bu ñu toogee mën nañoo bañ a muuru waaw bu boobaa ñoom jigéen ñi kese am nañu droit gisante aw ma malakat aymaanuhunna wala jaam bi nga xamante ni jaam la ci biir kër gi yow ku jigéen ki nga moom ko mën naa gis sa awra aw ittaabiina gayri ulil irbati wala way toppe ñi nga xamante ni e, mooy ñi ñuy tuddee ñu xaw a fooñi ñi nga xamante ni dañu dem ba mbirum àdduna dañ ci néewal lu bari dañ ba ci mbirum jigéen waaw mooy ñooñu nga xamante ni dañuy mel ni ñu xaw a foo ñooñu itam nga xamante ni dem na ba seen aajo Eh, jubluwuñ ko ci jigéen lu dul ñu ngi xalaat yeneen i problème yu bokkut ak problème mu jigéen nak àdduna ju neex ñooñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamante ni wala xale parce que awi tifli alladina lam yadharu ala awrati nisa parce que ab tifli dana ñëw yor maana mufrad wala jamaa waaw mën na ñëw nga jublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci jublu mbooloo eh, mu mel ni bu fekkee da nga ci jublu mbooloo comme fii ismu jins bi la looloo tax awit tifli alladina lam yadharu ala awrati nisa wala xale yi nga xamante ni jotaguñoo yórndu awray jigéen waaw xale yi nga xamante ni xàmmeeguñu lan mooy awra waaw xale yooyu nga xamante ni xamuñu lan mooy awra ndax muusaguñu fendeeguñu yeewooguñu xamaguñ ci àdduna dara ñooñu itam ñu gis sa awra kooku dara nekku ci mu mel ni itam alquran wala lislaam dafa mës a fiir fiir na ci jigéen lool fiiraay gu nga xamante ni tax na dafa bëgg rek jigéen dal te itam boo xoolee jigéenu jaahiliya yi bu njëkk ba lañu daan def moo di dañ daan sol lam yu rëy yu ñuy tuddee xal-xaal bu ñuy dox nag dañuy fëggatle lam yi loolu daan na tax bu ñu rombee ci mu ay góor nekk suñu lam yi yëngoo ñoom dañuy xam ne jigéen romb na su ko defee xel yépp dal di daw dem ci jigéen jooju romb bu dee fii nag ci senegal moo di fer yi nga xamante ni danañu ko faral di takk moo remplacé xal-xal yooyu yi nga xamante ni moom la arab yi daan takk jigéeni arab yi daan takk ci seen tànk yi yëngatu boobu nag dafa araam alquran daf ko tere daf ne wala na bi arjulihinna li yuclama maa yuxfiina ti zinatihinna mu ne itam bu ñu di yëngal seen lam yooyu nga xamante ni ñu ngi ko takk ca seen tànk ya pour ñu mën a xamle la nga xamante ni nëbbu na ci seeni awray biir waaw su ko defee nag yëngatu boobu dana tax xelu góor ñi xoot jëm ci ñuy xalaat ci ku jigéen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu mel ni kon jigéen ji daal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir këram ak ci biti mu ne tuub yàlla def ko bëgg ndax nit mën nay def loo xamante ni lislaamam nanguwu ko waaye bu demee ba am xolu tuub yàlla dana ca bëgg mbégaay gu jéggi dayoo ndax nit ki bu fekkee iblis xëcc na ko ba xëcc ko ci boppam mu àndak moom mu dem ba xelam dellu mu dawaat xam ne iblis du ànd du nit ku baax mu dawaat wuti yàlla daw googu muy daw di wut si yàlla bégloo na ci yàlla mbégte goo xamante ni su ko xamoon dana xam ne jaam bi tuub rekk ko war ndax tuub dafay bégloo yàlla moo tax yàlla ne wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun mu ne na ngeen tuub yéen na ngeen tuub jëm ci yàlla jamian an mbir mu ngeen di nekk mbooloo tuub jëm ci yàlla ayuha almuminuuna yéen way gëm ñi laallakum mën na am tuflixuuna da dangeen texe ci tuub googu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lépp loo xamante ni yàlla bëggu ko mu mel ni yahuutu madina ya dañu nekkoon ay kaccoor nekk itam ñu bon nekk ay wéyu daan naqaral yonent bi di naqaral itam lislaam bi ci fiiraange gi nga xamante ni fiiri na ko jigéen te jubluwu ci lu dul jigéen sell lu yonent bi def rekk wala lu alquran indi ci luy sellal jigéen ñoom fexe nanu lu koy tilimal mu mel ni nag kon jullit bu jigéen bi na xam ne yàlla mooy kilifaam bi ko sop bëgg koo jox valeur na daw wuti ko na xam ne itam seytaane moo di noonam bi ko bañ bëgg ko xañ valeur mu daw ko moo tax nag pour jàmm mën a am yàlla ne wa ankixul ayaama minkum والصالحين من عبادكم ومن عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم yàlla nee na wa ankixu na ngeen sëyloo al ayama ñu liibar ñi ci jigéen ñi ak góor ñi ku ci liibar rek ba amatuloo ba amuloo amaguloo wala amatuloo nee na nañu fexe nag ba nga am ci sëy E, ndax sëy boobu ci la diine di ñoŋe te dañu wax ne sàmm benn góor ci kër sàmm benn góor ci kër wala sàmm benn jigéen ci kër moo gën a jafe nga dajale junniy nag di leen sàmm ci àll waaw ndax góor gu liibar ci kër amul jabar wala jigéen ju liibar ci kër amul ci kër sàmm ko moo gën a difficile nga dajale junni nag nag di leen sàmm mu ne kon nag ku ci liibar amuloo jabar wala amuloo jëkkër ci jigéen ñi nañu leen sëyloo nag wasaalixiina ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu leen sëyloo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñëw ne bëgg nañu soxna nañ leen ko may soxna parce que itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki bu ñëwee ngeen rafet lu jikkoom ak diineem na ngeen ko may soxna nag te bàyyee kook yàlla ñu ne lislaam mosul nangu taxawaalu bu ëpp ndax loolu bëgg ko te itam wóoluwu ko te bu sañoon itam société islamique bi benn société du ko gën du ko gën a sell du ko gën a rafet jikko moo tax yàlla ne kon maye leen leen maye leen xale yi ñi ci mat a sëy bu dee jigéen nañ leen may bu dee ay góor itam nañu leen wutal ay soxna ndax loolu moo gën a wóor ñu bañ ci itam di ci xool yenn intérêt yi waaw ndax yàlla nee na in yakunu fuqaraa yugnihim allahu min fadli li ñuy bañ moo di nga ne ah, sama doom ji kat ki ñu ko bëgg a may eh, wóoluwuma ko ndax daal dafa yorul dara waaw ndax loxoom jotul gannaawam sama doom ji ci ñu ko bëgg a may daal xam naa ne du mën a yor sama doom ji ndax loxoom jotul gannaawam loolu lislaam daf ko bañ daf ko tere daf ko dàq li ñu bëgg moo di ñu xam ne wërsëg ci loxo yàlla lay jóge moo tax yàlla ne in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadli su fekkente ni ñi ngeen maye dañoo ñàkk ba amuñu dara yàlla nee na mën naa leen a jox nag ci sama wërsëg wi waaw mën naa leen a jox nag ci sama wërsëg ndax am naa ay magasin yu fees dell te soxlawu ko dayu ko dara lu dul yéen jaam yi rek yéen a tax mu wut ko kon nag maye leen su ngeen mayee nag dandu bàyyi maag ñi ngeen maye maay xam fa may jaar ak ñoom kon yàlla wàccoo nag ñun bam ñu leeralalee yoon wi in yakunu fuqaraa yughnihum allahu min fadli te kat nanu xam ne wallahu yàlla waasiun aji yaatu la xajoo na ñëpp yàlla ñëpp la xajool waaw bu xatal wërsëg wi waaw yàlla ñëpp la xajool alimun aji xam la ku ne la mu yeyoo waaw yàlla mooy séddale wërsëg nit ku nekk yàlla dana la jox la nga ci wërsëg te itam xajoo na ñëpp mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni istanzilu rizqa bi ziwaaj maanaam nangeen ngeen sàkkoo wàccee seen wërsëg ci sababus ngeen sëy bu dee jigéen ñi neen wuti jëkkër ndax loolu dana yokk seen wërsëg su dee góor ñi nañu wuti soxna ndax loolu dana yokk seen wërsëg wante itam yaakaar ne soo wutee soxna ñàkk loolu itam baaxul wala kii bu la takkee du la mën a yor yàllaa yor ñëpp mu mel ni kon yàlla daal rëddal nañu yoon wi wax ñu fi ñu war a mën a jaar te moo di ñu maye te bàyyeeg yàlla ndax moom moo bind moom itam mooy wërsëgal mu mel ni ñi nga xamante ni yàlla dénku leen ay soxna ñooñu itam am na lu leen yàlla sant ñi nga xamante ni yàlla dénku leen ay soxna ndax mënuguñu ko yor ñooñu itam am na lu leen yàlla sant mu wax ne wal yastaafifi alladina laa yajiduuna nikaaxan xatta yugniyahum allahu min fadli yàlla nee na yéen ñi nga xamante ni nag amagu leen doolay sëy na ngeen doylu nag te ànd ak seen sago yen ñi nga xamanteni amulen amu doole sëy na ngeen doylu te ànd ak seen sago ñu laaj yonent bi nak ki amagul te mata sëy te mënagul a yor soxna ñu koku nu muy def nak ba mën fegu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni من استطاع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج mu ne yéen xale yu góor yi képp koo xamante ni yàlla may na ko mu am kàttanu sëy na takk soxna ndax loolu mooy fekk lislaamam mooy tax diineem ñoŋ mu ne nag képp koo xamante ni nag amuloo dooley takk soxna ndax wërsëg wa nekku fa te itam boo ko takkee mën na laa indil fitna wala itam situation yi nga toll mayu la nga takk soxna su boobaa yonent bi nee na na nga saxoo woor nee na ndax li ñuy tuddee ak shahwa ci e, nit mu di plaisir koor daf koy damm daf koy damm ba dootul amati kàttan moo tax kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na jeunes yi nga xamante ni ñu toll ci takk soxna te itam seen situation mayu leen ko ñooñu itam bu ñu bëggee mucc nanu faral di woor su ko defee nag sëy yi daal nañ ci yaatal yàlla buñ ko ci yaatalee dana dikk ak xéewalam ndax bari na koo xamante ni yaakaar nanu ko ngir wërsëgam may ko soxna mu dee bàyyi fa njaboot ga yow ma ko mayoon soxna nga dellu yor njaboot ga yoraat soxna sax kële moom yóbbu nañ ko ca bàmmeel ya suul nit itam da nga ko bañ a yaakaar ci ñàkk wërsëgam wala wërsëgam wu néew ba koy xeeb yàlla dogal ci kàttanam ka nga doon bañ ñu may ko ko yàlla dogal ñu may ko ko du yàgg yàlla ubbil ko wërsëg wu yaatu ba nga dem ba am ca gàcce loolu itam day am su ko defee nag ñu xam ne yàlla ci boppam mooy woomalal ko ko neex moom itam mooy xañ ka ka neex mu mel ni ci jamonoy jahiliya ba lislaam ñëwagul arab yi dañ daan def suñu amee jaam dañuy jël jaam ba di am luñ koy imposer te moo di fexe ba muy jaay boppam ñu defar lu mel ni ay baar ak i hôtel yóbbu ci xale yooyu ñu nekk ay xale yu jigéen yu rafet ñu leen di jaay bu jigéen bu touriste ñëwee wala itam caaxaankat bu ñëwee joxe xaalis jëfandikoo ba mu neex ko mu dem loolu nag la lislaam bëggoon a dindi moo tax itam alquran wax na ci wax ne wala